Ah, nanga def no tuda yo yaay kan my um, journalist Kifa Barhama the baddest journalist and the agent of change <laughs> yeah ki nga xamne moy president Adama baro nak no gisee ngoro man baro luma dewa olita may he is the biggest clown baro is the biggest clown parce angal mako e man do um, who fight the never enjoys the victory te ñun ne wara baye hel suñu the falling down of the yellow leaves is a lesson to the green ones baro doesn't fight the fight baro su on xebi du daw dakar dafa tok time bu struggle bi di metti yep mu ngey tok di setan maji arsenal solo sande mu ko arrest 2013 lan mota baro genut bu protest mota ci wax nit ñi wax nit nan wea wea you dama di xamne this guy is dreaming so man luma oil he's the biggest clown xam nga from the frying pan to the fire man lima day gambia still now we are not lucky to be blessed with a visionary leader man baro bu mako timé interview face to face la xamné gambia baro muntah nek fitul tapul nek alkali suma jakarlo mom waxtan rek la xamné ki definitely fitul pul nek alkali gambia still now we are not lucky we are not lucky so bo hay bay health system bi dekk bi mu ngi gëna delu gannaaw lekka ngi ser l'hôpital ni garab mu ngi gëna manquer soo demee pour faju sa pour nga am pour la faj problème la man xamna ci dara recently l'hôpital soko ko LFT machine bi mu ngi pan das di liver function test machine bi ba nga xamne dañ war am dem pour indi nit be Dakar mu war ko maintenance machine bo xamne ne yu sew yi jangoy yu sew yi mo moy def testing bi ayodine So demé théâtre ayodine amu fa plaste amu fa spirit amu fa lañ la xar pour ñaxu la da nga am dem pour jëna matériel yu yëpp ci pharmacie bi nga indi ko extrait soo ko bàyyi xel soo extrait ba pare fiim amut eh, li fi amut na eh, enveloppe seven months léegi nii lopitaan amuñ enveloppe dañ laa jox extrait bi nga téye ko sa loxo so man moo tax man suñu yaay may leen he is the biggest clown so far salaire bu ñoo wax ñëpp xam nañ ni Gambie ni mu demee corruption mu ngi gën a yokku fu mu nekk nii wax naa leen ko may ne baro ni mu toogee nii ci toogu bi xanaa mu boof fa su boofut du jóg. He's the biggest clown. That's all. na Gambien ci Gambie lutal tax Fatou Samba ma wax leen ko dinaa ko Gambie talen ñu deg ko Gambie du tele dem kanam man wax na len ko xana malaika yu ci palu lutax moy rew mo xamne xam ne fonkuñ borom xam-xam réew moo xam ne fonkuñ diga rew mo mu du gawa dem kanam tey Gambia liggey kat ñu nasax soy liggey kat ñu nasax lola, Gambia laa la yaa ngi dégg boy Samba booy liggéeykat ñu nasax lola say waxkat di dëgga ñu tuumal la suñu xamee ne yow liggéeykat nga ci boppam sax lu ñu laa gën a def mooy dañ laa nasaxal yaa ngi dégg kon moo tax may wax ne Gambia still now we are not lucky to be blessed with a visionary leader and dëkk bi nu moo demee ñun xam nañ dafa métti gis nañ ne basic food commodities the prices are rocketing every day ñun xam nañ loolu ba léegi ñu ngi politique gis ñeen diggante Barrow ak Darboe loolu moom kenn du ko werante ñu ngi mel ni ay Tom and so ñom ñaar buñu nekké si jamono bi di puusan fight di di nekk ci biir political ring bi di hé xagn la gambie di setul so pour won leen rek foog maalo damut be nekk 2000 3000 gambien si duñ xam sen value as a citizen duñ xam né suñ buur yi they are our servants suñ suñ président yi suñ servant la ñun ñoo leena fay wër bu dé ñu né wara dañ leena put into accountable ñu make sure ne président ñi ñi indi fi yépp nañ leen takal pot be gambie luñ soxla tay mu am ko ñun waro nañu dem di di tumu rank Gambien waroon dem di dem ay baak wi Gambien ana Njogona da nga ko déggati reer sa déggatuloo ko léegi li nga lekk sa biir bi pour añ moom ngaa dencaat mu nga fanaana moom wala nga seetloo ponse mu laawul ne soo bëggee xam ne nit ñi kontaanuñu rek daf yomb na ba dee xoolal kanami nit ñi xoolal kanami nit ñi man sax soo ma xoolee nga xool na xoolal sama kanam bi na man nii laa meloon. Ah, kiifa ñu neegon ne jamono joju yaangi won hamne fi nga xamne moy ci si lopitaan yi ah, nga struggle lu bare bare bare bare ah, kiifa naka nga dundé nuni ma wa man suma wër gu yaram dama day wone su nekkuton suma family time bi suul lañ ma bu yaaga comme luma la day wone ne su fay di wone ba the victory xex bi mo da bu ma hypocrite di wax ne nekuma won NIA ma ne leen dem leen ngeen laajte Tobaski dem leen ngeen laajte ki nga mom UDP mu ngi taa taaxu aste aspirin kansula in Serekunda moom ak suma yaay ñoo ma jël si ba NAE man am na ay nit maa ñoom Modou Ngom ñoo nekkoon NAE ak ñoom Solo Sandeng loolu kañ yomb na yàlla maye leen xeeb bi doo su fay di woon ne ba enjoy the victory même daa boobu ñoo wax sa dooruñ ko tey soo bàyyi xel victime si ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo daj ci coono bi am léegi la léegi laa gis ne TRRC bi ñu ngi jël victime si di si lopitaan yi di seet seen yaram yi nuñ def. bu nga xamné victime ci xaat bi yeb dé nañ légui lañ doga ñew di xol suñu wër bu yaram bi mas ma family bi ñaata xaaliss lañ fay ci l'hôpital ni su nekkutoon amu ñoon wéccit bo man fan lay jëm ñu yobu ñu ci tok ñu ñu sétane ñi wa baro di wax na victime ci dañoo use li pour seek an opportunity pour capitalize man ni ma interview baro face to face baro wax lolu ci gémmiñam bi so mo la wone comme paré wuñ pour jappalé victime si so baye hel ñom solo kuruma bimu dayé bé légui dama nga sét family bi lu ñoo dacc solo sandeng family bi ñu ngi neulé soko demé nga dama nga set fu eh, ñu ngi neela di luwas ndab lijeenti nañ jël nañ scholarship ñu ko domi solo sandangi di dem jangi ñi su luñ la wax du dega buñ la waxé né la yalla amna sa wér wédiko politicien luñ la wax du dega té man ma len ko baro du paré wacce dafa tok gambia 20 years to come gambia du am foundation so xolé rew mi ni mo démé mo la né gambia du am foundation deka buy dundé ci tax ba do la ya du fa gëna parce que si tax lañ ko dipen a Gambie lu ko yàlla may yëpp ci tax lañ ko dipen xoolal bi mu toogee ba léegi xëccoo ngiroo ŋaayoo bu nekk ci biir réew mi moo tax ni ma la ko waxee ma ne la dëkk boo xam ne fonkuñ borom xam-xam fonkuñ waxkati dëgga gëmuñ liggéeykat dëkk boobu dellu gannaaw rek gambe nag gëmuñ liggéeykat fonkuñ waxkati dëgga bugguñ li bugguñ waxkati dëgga dëkk boobu noonu di gaaw a dem kanam moo tax soo bàyyi xel réew ñu ñu ñu ñu ñu ñu wër yëpp ñu ngay dem kanam di bàyyi Gambie gannaaw man di seetli maa ngi tukki gis naa yeneen dëkk yi nuñ gambier rek mo ci mel tumu ranké gambien nga mel ni bu amut wajur légui kuko waxé ñu la opposition man ganaar kenn nenuma dama ko dewa ganaar kenn nenuma du mama kandé du khalifa sala du parti bu mujjé taxaw ni es ke ganaar kenn nenuma te maa ko gis nga ku tok ku musa tok même yow mi sax fatama di waxa man pa os mu gambee talen toog nékon tay président mu togon tay dina ko ngañi su defat lu mu war ta def ganaar kenn nenuma digga bi affaire du wax bi ni pour nit man bala maa dee ñu dafa out hype ban hype kan la soxla hype Gambia fi bala maa dee ñu naan dafa out place kan la soxla seen salary 3000 4000 ñun xam ne li ñoo fay seen nit ñi dëkk bi dañ ko wax te ku toog ma ŋaañi la soo deful la war ta def ma wax ko kenn moomu dëkk bi di suñ dëkk la soo ngi nga suñ jógut ñu wax ñu jóg ñu lijjanti leen Gambia du soppeeku nit ñi dañ soona wala nit ñi rek dañoo doon ni bala nga ko xam nga jógee Bambo di dem eh, eh, eh, Bambo Westfield di dem Bambo nit ñaa ngi runga leen ni mutu amu ci dekat bi itale si bi nga passé ya nga xalat ñaari dërëm yi ngi ciy teg amburu bu bu sa doomi ponzé tik sa getin xaat ba dofu nekk nii dafa yëg lu géej bi di riir xoolal jabar ji nekk ci booram ñoom ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi li flamboyant life lu ñu wax ci yaay jëme yëp mo nekk ci ci ñom xam nga lu utee ak ñom ak yaay jëme rey ak rendi lu rek uté ñom ak yaay jëme rey rek uté ak digënté yaay jëme waye lu ñoo yaay jëme lu ñu daan def yëp 69 la ñom ñëpp am duñ dimbalé gambien ci té gambé du téla changer parce que gambé ni bëggu ñoo cëñ gambé nañ jël seen président def ko waliw def ko ay def ko ay ay ay ay yonenti du cëñ man mala ko tout decade xolal nga seen na dina wéccé ko tax ba ngay yok malom ngay yok kaas pa mom waxu mu ngi mu ngi melni kuy rité wanté ak nit ñi there is nothing in this country lo xamné amal nañ ko foundation especially society help bi geej baangi ni Gambia mooy di only contri mun naa koo wax ne in the world including Bissau ñoo xam ne amuñ gaal especially Gambia amuñ suñ own ship amuñ suñ own trawler nga xool tey luñ fi am ferry ferry bi gis nga ferry bi nga xam ne soo demee yeneen dëkk yi ferry yi moo dee yóbbu lajum moo dee yóbbu ay tamaate ay ñambi lii ferry la mun nañoo ut ay passengers boat yoo xam ne mu mel ni bu nekk Ziguinchor Dakar passengers boat boo xam ne mooy bugg di yóbbu nit ñi ñoo am gaal boo xam ne mooy bugg di ay bagages. des entaye Gambien mënuñoo am seen gaal yi lu tapee géej bi duñ ko mën a jox nit ñi ñu ñu njëriñoo ko tey benn troll la bu nekk suy nappa si géeji Gambie bi su tuutee ba tuuti 1 million dalasis dina ko liggéey lan moo tax indi wuñ ay troll ay gaal ay ship ñu teg ko ci biir dëkk bi doomi réew mi di ci liggéey lan moo tax indi wuñ gaal ñu teg ko ci dëkk bi bala ñoo jox lay seen jàmbur yi ñun ñu liggéeyee ko red snappas nan la benn karton di jar ay 10000 lobster yi african mix ñëwagut li yëpp xéti jen la wo xamne mu ci geejji Gambia bi luma ci xam man dama ci xam lu or peng ñu tok ñu naan baro yaay baro olala ñu bëgg ko def prince charles lool du fi am du fi am man ma bañ ma bañ ma wulenke man dama ko day wax dañoo wax te dinañ continuer di wax mami ken momu dëkk bi bàyyi kenn moomu dëkk bi su gaay yi naan you are controversial you are nangam man dama rew sa media bi dañ hypocrite man dama dee wax lool because kenn ku nekk yaa ngi yaa ngi farleel Baro kii mu ngi farleel eh, Amat Ba kii mu ngi farleel Halifa Sallah naka la dëkk bi di demee kanam. ban des Gambian Talents. ma ne ñëpp a yem ku ma tànn wu dégg nguuru foofu. ban des Gambian Talents. Eh, ah, xam nga ma suma dëgg damaa wa waaye dama laa ne majority of the media. miinu ma ñëpp xam naa ne majority of the media am na ñu am na ku nekk pàtte boo faral loolu dëkk bi du gaaw a dem kanam. liggéey journaliste ñun xam nañ ne gestu moy suñu liggéey ñaare luñu gestu ñu fexé mu nekk luñu ñu uur ba paré ñu tassaré ko askan bi ñu jàngee ci waye nekkuñ diko doxalé noonu. ñu invite la ku nga wax. wa man motax luma wara wax wax nako man waxuma pour lo ken waxuma pour disrespect ken waxuma for the interest of any political party ma ngi wax for the interest of the Gambians. because ñu suñu yaaya dé sona suñu jigen yaa dé sona bala nga ko xam man mi duma ré dee teel a tida fo génnal foo nga gis jigen ni ñoo soné ci biir dëkk bi ñoo dee njëkk téla ew jigéen boo sa gis mu ngi téye pàññam wala mu ngi téye baagam di wut li moo dawal pour pour pour famille yaa ngi tëdda foo laa la wax ne jigéeni Gambia jigéeni Gambia day am number one in Africa ndax tey nguur gi bëgg nañoo dimbale jigéeni Gambia ana naa koy yi ndax ñu ngi leen a dimbale tey ñu mën a jaay seen lajum yi nga xam ne ñu ngi ko amee tey engrais sax seen problème la muy fertilizer what are we doing to make sure Gambia is going to be safe amut bala maa dee ñu naan ma amuñ nañ bàyyi waxi oil mu ngi fii cotton la ñoo dundee. Cotine witin, ak sen geej bi man nek na Mauricio six months Gambia am nañ geej bi Gambia am nañ suuf si tey suuf si nga xamne baro mu ngi ni jëm jox ko jawara jawara mi nga xamne indil nako fi ay gànnaay xawma lan la paré pour dëkk bi mu jox baro tay bu baro suuf mu jël jox ko jawara suuf soosu da nga liggéey aluminium dang sé see liggéey daaj suuf si da nga liggéey même computer parts dang ko sé liggéey lan motax nguur gi ñu jël suuf soosu non ñi bi compagnie bo xamne tay dañ see process yoyep Gambien si si liggéey loo xam ne suufi dëkk bi suufi réew mi ñoo ko moom doo ko day jox an individual Gambien da nga koo fexe nga nga nga nga stabilise ko nga employé fa Gambien waaye doo ko jox an individual Gambien loolu moo laa ne Barrow am na si interest am na lu mu si séentu loolu amu ci tey géej bi géej bi rek mun naa texeloo Gambien waa Gambien waroon naa tey di produire sardañ sardañ tey waroon nañ ko produire ana tuuna bi wan lan na ñoo produire si biir réew mi yëpp ñu ngi ko jël ana gerte bi saaroo. man noo maa gis ne bëri laa liggéey liggéey naa saaro two years ana gerte bi saaro gerte bi dañ koo jël eb ko ci ay container almost 17 container lañ ko fi dee génne at bu nekk container mu nekk mu ngay jël 700 bags of groundnut amuñ ci loolu nga xool gerte bi engrais bi troc bu nekk 100000 dalasis 100000 dalasis troc bu nekk engrais da nga ko mën a liggéeyee cardboard da nga ko mën a liggéeyee biscuit lan moo tax Gambie mënuñoo mënuñoo produce biscuit munuñu lan moo tax munuñu produce fertilizer from that engrais lan moo tax from that engrais si bop li li engrais engrais si bopam munuñu ci produce cardboard bu nit ñi di tëdda saaro bi mu ngi ni dañ ko jaay indian ci indian yi export ko mu dem li kenn duko wéranté baro sa bu taxé duko ñëmé wéranté gis nga ñi government condamné government bi condamné bi condamné bi dañ ko def sen ATM di ci rocci di ci dunda gambien ni di torox man dama leen ko dé malo foog defut 5000 do len xam lu geej bi di riir dimbale wuñ réew mi seen préparation yi yëpp dosin tel wel ana birig bi bi mu daf ko mbubo lo xamné depuis jawara jawara france lañu ka dem discours ko ak ñom musut man man na len bi angleterre ñoñu colonize independent ba ngeen ñëw du lolu tax nga ma interview on the 18 di nga gis sénégalais yi ñoo ñëw colonise nekk di seconde dik bo xamné ñoñu colonize bak ci baro amut fayda man dama leen ko réew may len amut fayda yàlla daf ñu mayoon kuy dóoree léegi mu may ñu koo xam ne tuuy la amul fayda moo tax ñu may leen he is a clown he doesn't understand pare pare te joxe dëkk bi. three years ami moo xam su bañee su buggee siisu pour toog five years ami five years ami mu jotee su ba jotee na joxe réew mi mu jéem a bàyyi nit ñi seen dëkk bi mu continuer dem di feeku liggéey lu waasam baro tey xaw ma estate am bi xaw ma manjub la xaw ma tey soo demee xool famille bi la fa teg soo demee xool jarbaatam yi ñu ngi dawal moto government te liggéeyuñ ci government mu ngi leen jox moto moto ñu ngay liggéey ci government ñu ngay liggéey ci government mu ngi leen jox moto government ba pare moto yooyu noonu amuñ sa nomba plate so niñ waxante digga réew mi li fee dew ndax gambien si daf leen neex na dañ nekk di ko seetaan wala lan tey ku wax ne ba ñaata alal lañ ñu jox boy saa ngi nii ñu ngi leen naa jàpp jàmmani bu nekk ñu indi leen yaa nga indi ñoo xam ne leen ay métier fo leen yobbu ya eh, eh, ji fii nii eh, Gambie xaw ma nakal nga len dee yobbu pour ñu dem dafi ji cos si institution bi fi bori bori bs cos bi la nga jox soo joxe nit do def soo defalee nit mu def cos so pare jox ko bitig bi mu neka jox ko bagage yi mu jox lo ko bagage yi mu jox lo ko lo ko budget bi mu staté lan nga expect ne so pare nga jox ko certificate kayit kese di kese lan mu na indi baguye bi pour nga fay ko tuba bi ñu ngi la jox sa yu ma interviewé Gambien ci online dañu de wax né tuba bi dañ ñun ñu njibi lu ñoo jox jox nañu ko jox nañ ko suñ buur pour ñu dimbalee suñ dëkkay né ne ñibi suñ dëkk amul problème jox nañu xaaliss lu ñu wara a ñom ñoo tax eh, bandi yaangi bari ci dëkk bi légui digg bëccëg sañu rapino la yu suñu indi nonu yu yu suñu non feyal nga stabilise compagnie bo xamné dina dina staff 2000 gambians su boba 2000 gambians ñoo staff nonu ñu am ñu am fuñ ci liggéey tay gambie ak yow yaangi jël opportunité ci yépp yaang ko jox gan yaang ko jox naar yi store yi nga gis ni yépp xoolal government projects yi léegi lañ doog a jox taf taf construction léegi lañ ko doog a jox dalaba lu tax mënu ñoo jël taf ñu jox ko banjul ñu meeg banjul dañ ko dañ ko dañ ko rebuild taf construction najire dafa toj toj yeneen dëkk yi lan moo tax taf nekkuñ di ko jox yeneen contrat si dalaba léegi lañ ko ko doog a jox ak yeneen yi nga xam ne mu ngi xew fii ci biir réew tomato compagnie bi fii gis nga suñ ko fi waaye luñ fi wax tey mu dëkk bi tas GRA GRA bu ñoo wax nii mooy ATM bi ñëpp fa la ñoo tibbee GRA um, uh, social security ports ñoo yaaxa réew mi foofu mooy bunti utukaay yi foofu mooy condamné dëkk bi ku bugg a sàcce si port bi ngaa sàcce ku bugg a sàcce ji GRA e ngaa sàcce ku bugg a sàcce eh, social security ngaa sace ñu ne kenn du ko wax yokkuñ duñ yokk a salaire yi ñëpp sàccakat la ñoo nekk moo tax soo demee si nguur gi tey ñu faa liggéey ñëpp sàccakat lañ amul kenn ku liggéeyal nguur gi te sàcculoo soo sàccu si nii di nga sàcce si ne. ñëpp sàcckat lañ soo sàccut ci xaalis di nga sàccut doo teel a ñëw liggéey Gambien fi kañ lañ dee dem xëy liggéey eight o'clock na ten o'clock ñeneen noonu time boobu la ñoo ñëw office nekkuloo di sàcca nekkuloo di sàcca réew mi kañ la kañ nga dee wàcca ay tri tout nga wàcca liggéey kan moo mu sa dem liggéey mu liggéeyal nguur gi ba jeexal mu ne eight o'clock bu mu sign ak dëkk bi liggéey na eight mu wàcca mu wàcca foo amut fen soo sàccut réew mi ci nii sàcca nga ni réew mi ci naa xeeti sàcc dafa bëri façon réew mi du gaaw a dem kanam Gambia naxaree ay Gambia ko dee wax man mii di wax ak yow man wàññi lu ma dara man suma famille bi dañ yaaga xeexal Gambie bi yaa jame bu moo dem Amérique suma famille ñu ngi ko attaque foofu ñun Gambie bu naxaree dañoo dem liggéey si biti ñu ñoo fay ñu ñëw def ko suñ poos yi métti waayu man wàññiwut ma dara personnel man wàññiwu ma dara because bu ma feebaree du nguur ma jàppale dimbale maa jóg tamit pour xeexal réew mi du nguur jàppale bi moo métti ñoom ñëpp a daw dem toog solo bi ñu ko jàppal 2013 lan moo tax baro génnut lan moo tax baro génnut te dee bu ñoo bu ñoo bu ñoo proteste fii lan moo tax baro génnut Amat bam yi di ibi gémmiñam bi di wax lan moo tax keroog bu ñom Dabo di protest on the 16 dafa ñëw ba kër Dabo mu gëna daw ma nga amé vidéo bi mako lan moo tax lan moo tax topput mu protest kèn bëggu ci réew mi ñom ñep kèn bëggu ci réew mi kèn bëggu ñoo dimbalé réew mi so gisé fu mu nekk nii mu ngi top gëna baro nekkal ko ben eh, lim nekké la tay mu ngi ni promote all inclusive all inclusive tay ñu nekk si tourisme bi won man ñan ñoo nekk di enjoy tuba bi bu ñëwé yëpp ñu bëgg ko def ci biir hôtel bi na loolu dina ñëriñ Gambien si ana restaurant ci ana tourist taxi yi ci naari amna luñ ko jox mu promote all inclusive Gambien ci bu ko wax may leen yeen hypocrite ngeen amat ba bu promote all inclusive yeen mu nekk restoran, restaurant mom moom restaurant yi lan mo taw yeen jogu leen ngeen protest loolé ma oyé naan ma kay nga def ni amat ba bu ñëwé ñëwee ba ngeen laaj naar bi lo jox amat ba be amat ba promote all inclusive yeen mi yéen a juk, a ngeen wax naar bi ne ko li nga def ni du yoon waruloo lo def li su boba yeen seen boba ngeen jog ngeen protest li ma la ko waxe rek so demone l'hôpital nga laajte man may may seede bi ayodine ayodine la la wax ayodine bu gën a ak spirit dang nga koy jënd because man dama fa dé dem da xamna ci dara gulof gulof rek lañ am ak lan drips diko ko né ne ndox la drips mom so demee l'hôpital drips mom ambalang musu faa manqué bandaas koy soo lan lañ bëgg a wax ne dëkk bi mu ngee dem kanam lan lañ bëgg a wax ne nañ ko may chance chance bi lañ mayoon Yaya Jammeh mu toog suñu boppa yow bu Yaya Jammeh demee loolu opportunité la tubaab bi ñu ñu jox loolu ak loolu pour ñu plan réew mi ñu ne université bi fan yi am nañu graduate xaaral nga xool na dinañ leen jox liggéey graduate boobu noonu xoolal nga seet nag dinañ leen jox liggéey ñëpp mënuñoo liggéey ci nguur waaye nga nga taxawal nga nga ibi ay bunti liggéeykaay yu nit ñi di liggéeyee diga bi fok nanguwuñu waxkat yi dégâts yi ñu wax dégâts bàyyiwuñ liggey kat ñu liggey borom xam-xam ñu jox leen place yi bi du dem kanam because nepotism kenn ku nekk sa xarit yang ko utal place kenn ku nekk sa jarbat yang ko jox fum nekk kenn ku nekk bo sàccee nga jox sa morom mu def ci posam senegal lan motax tax gannaaw lan motax senegal bañu gannaaw man 22 countries la dem I am a seaman I am a sailor not only a journalist waaye deka yu ma dem yeb Gambia mu ci gëna delu gannaaw dëkk yu dem yeb Gambie moo ci gën a dellu gannaaw te mu ngi gën a dellu gannaaw bi léegi. pour wax rek ne pour gàttal suma wax Adama Barrow lu mu nekkee nii gis nga comme bul bañ laa dog de am na fan yoo xam ne nawek këram bu nekk yaram mbamba xaw ma yaram mbamba xaw ma fan man mi maa ko gis si kayiti nawek booy buy liggéey foofu ma ne ko booy mu ne ma Adama Barrow këram bi mu ngi ameel nawek 30 000 nekku di fay ndox. ma ko jox ma kayit bi ñu def ko ci media bi ñëpp yegg na Adama mu ngi amel nawet te thirty thousand rek la mu ne ma suma ko suma la ko woné ma jox la ko dañ ma daha ma ko suñu la ma dem bété FM mu ne ma duma la ko jox man mi mako gis kiram bi fii fi mu dëkkoon mu ne ma du Adama Barrow rek mu ne ma borom xaliss bari na ci biir dëkk bi ñu amel nawet duñ def fay mu war ma ay ay tour tur ko jox ma ma photocopie ko mu bañ mu ne ma dañ ma dañ ma daha légi yow ya nga gis ñoo ñu ngi defal lool réew mi ñu ngi toroxal réew mi ya nga ma baña jox ma siwal leen nga ne dañ ma daha dama Sénégambie lan la fa government véhicule di ut guddi man man man nu ma dee wóor fu nekk laa dee duga lan la government guddi véhicule di ut guddi Sénégambia ji ji lu ma ut Sénégambia xanaa dañ la fay pour nga yóbbu sa moto bi Sénégambia waxuñ dëgg kenn ku nekk yaa nga ut loo def sa biir bu mu rëy faale waloo sa morom sax Gambie ku nekk fu nekk nii soo bàyyi xel foofu government bi yëpp la la bunte utee kaay la soo amee man xam na um, GRA dem fa soo amut 150 dalasis doo am doo doo doo eh, tii nomba te tii nomba is fifty man am na corruptions yoo xam ne man I get in and see it for myself and I have the evidence lay sin da ngaa toog sa kër one thousand five jox la ko benn trola bu nekk suy liggéey ci géej gi bi two million dalasis minimum loolu la moo liggéey ci dee bi ak lay bi ñu laa jox du nekk benn there are so many things lu yem ci dëkk bi loo xam ne nit ñi nekkuñ di xool intérêt ci dëkk ku nekk yaa ngi xool ni nga toppee Adama Barrow nga wax ko ay ay ay ay ko nee comme gisoo ni ko Henry Gomes daan defee su ñëwee ne ko nii baro affaire bi yow la baro ekkati xaalis ne Henry am Henry Gomes ne ko yuut si suma office baro affaire bi yow la lii li gis nga ñun man dama dee wax ne si nattu lañ nekk ba léegi si nattu lañ nekk ba léegi nañ jox xale yi ñu yore réew mi nañ jox xale yi ñu yore réew mi nañ jox xale yi ñu yore réew mi paa yi ñu génne leen fi paa yi mënuñoo yore bi dañ ñoo tardeloo comme ci gatal rek loolu la mënoon a wax pour ba pare advice Gambien ci ñu fexé ñu xamné ne ñun ñoo bi ñun ñoo xeex ceeñ bi nañ continuer xeex ciñ bi man dama daa dem ba mer né man duma duma jugalat dara ci mbir Gambia dama nopi, dama seetaan mbir waaye duma ko mëna def fokk ñu jog ñu xol lu ñoo def lo xamné ne dina jàppale dëkk bi kenn ku nekk amna lo mëna mën defal réew mi sétal lo mëna a defal réew mi nga defal ko réew mi lo defal sa morom mu yobu ko kanam rek dafa melni réew mi nga ko defal té luma ma wa élection mu ngi ñëw Ara Barrow na génn dëkk bi nañu bàyyil suñ dëkk bi mu dem nañ na continuer mu dem def liggéey luwaasam bi mu nda yore Gambia ting saa ngi métti na dem wat mu dem fey ko halisi si mu bay ñu ngir yalla yonent bi loolu rek laa na ñëpp jog ñu vote ko out te li ma wax tamit wa UDP yéen a la wax ne dafa tok 5 years léegi na ngay wax 3 years affaire bi xaw sen interest la ndax interest dekabi bi la ciow li bëri na no len mu na def ñu nekk soo comme dëkk bi du am any violent waxuma na UDP da ngeen bari violent dama leen naa wax lu leer affaire bi du benn parti affaire bi affaire bi yëfi Gambia la men seet interest si dëkk bi bu ñëwee dañ wax coalition Adama Barrow coalition ñoo ko fa teg kenn tegut ko fa kon coalition nu ngi ko fa tegee te coalition xam nañ ne Gambien si ñoo ñëw tugeera nañ fexe tamit mu fa toogati na fa génn keneen mu ñëw toog fa parti yaa ngay ñëw bari nañ lan la ñoo isil Gambia ak suñ ñëwee lan la ñoo defal Gambia na ngeen ko xam politicien yi bu ñëwee yëpp leen rek lañ leen a wax ne du ma leen wàcceel yàlla politicien bu ñëw mu wax la ay kàddoom niñ ko déglu politicien bu ñëw mu wax la ay politicien bu ñew wal ay kàddoom sétal ñaata jabar la am sétal ay yan kër la tek li dañ ko wara xam politicien da ko gestu politicien nga xam toogaayam wayo ñi dañ def legi soko baye ku ñu am sa 1 million dalasis ku dem sa parti bi bi ngi ko registré sa 1 million bi da ko lepp nga ñew ñu jox la radio bi ñi nga ñew ñu jox la rew mi nga doxale nu la neex ba pare nga ñew tok so pare nga ne gambien ni dof lañ suñu pare na nañ ko baye yalla nañ ko sétane ak yalla yalla baxna yàlla will never come down comme di leen wax ne asalaamaaleykum am seen doomi ndey la woon am journaliste Kiifa maa leen fi nekkaloon pour wax leen ne ur na yàlla yonent bi ne li ma wax nii yëpp dama ko wax ak si suma xol utuma ci dara Gambie moo ma ñor te Gambie moo ma yàgg di ñor parce que man ñu ma xam xam nañ individuel lan laa mel ak Gambien si xam nañ individuel sama individual contribution si youth si man loolu ñu bëri xam nañ ko kon pour wax ne rek kenn ku nekk nañ xool lu ñoo dëkk bi nu moo demee kanam te yàlla musal tamit bu fi ay musa mboolem loo xam ne Gambie ñu ngi ko bugg mel ak suñu moromi réew yi yàlla lañ ko mel yàlla soppi xol yi soppi jikko yi jàppale ñu si nguur boo xam ne su ñëwee mooy mun a teg Gambie si yoon wasalaam jërë ngeen jëf. jërëjëf